papa doom tey maître e la Diouf lañuy ñuy dalal kon maître El Hadj Diouf mën nga nuyoo. maa ngi nuyu internet yi di nuyu dañoo lakk sa kër. qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela. parce que yaa osé défendre ki nga xamante ni moo tax dëkk bi tàq. maître kan nga défendre sax. défendre Adji Sarr ki fait trembler Ousmane ah. Sonko. maître Adji Sarr trembler wul Ousmane Sonko kese de. mais dëkk bi la taal papa kii loolu la xamul problème mu Adji Sarr bi ñi si blessé bëri na trop ba bëri na nit yi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñu leen di jaalee di ñaan yàlla yàlla xaare leen àjjana ba jàmm dellu soit ci Sénégal ba ñu mel ni maître El Hadji Diouf dootu ñemee défendre kenn ki nga xamante ne day taal dëkk bi ah, ah. <laughs> mooy mais maître mi est-ce que ça va maître kay ça va pas mais maître xanaa xamoon ni Sonko moo ko yor sa bàyyi jur la sa mais pour nga teg nga ah, Sonko ko yor da ko yor yow maître maay bàyyi waaye Sonko moo ko wax. ñàkk fayda. yow ku la gën a ñàkk fayda maître daa am yow nga xam ne say boo waxee ci réseaux sociaux yi ñu saaga la. ba léegi réseaux yi ñu ngi may saaga xam naa amuñ jot man ma costume costume rafet bu jar ay millions keroog nice gaari sama bu neex. ndeysaan alalu àdduna da ngaa jaral lu ne. ba yóbbu xelam bi te xamul ne alalam bi peuple bee ko ko may. respecté wul sax sénégalais yi maître bu tayee mu wax lii bu subaa mu wax lee waa maître ndax fenkat dinañ ko jox suñu réew. kooku kañ ko jox suñu réew mi. farikat ñëpp wuulu ba day dox réew. ah kon maître yow xam nga lool. ku ñàkk fayda ba dégg sa réew farikat. ku ñàkk fayda nga lu la da ëllëg jàpp suba. billahi. maître comme que sénégalais yëpp xam nañ yow meekan nga. bu mag sax te moom nee na day nekk président deux mille vingt quatre de. maître nga ni. yàlla xam na kii falu ëllëg. maître yàlla kay xam na sax jour bi ngay dee. yàlla pare na démb tey soog a ñëw man dama gëm ni may falu deux mille vingt quatre incha allah rabi.

intellectuel ñoo am. intellectuel yi imbécile am na. mooy yow. intellectuel yi jaam am na. mooy yow. intellectuel yi traître am na. mooy yow. intellectuel yi am na. mooy yow waaye choisir nekk intellectuel yooyu da ngaa choisir nekk. choisir nekk doomu xat. choisir nekk doomu haram. choisir nekk imbécile. choisir topp benn imbécile. waaw maître bi ak bàyyi nekk intellectuel yooyu yëpp choisir nekk loolu. Ah. fii maître daal jaaxal na jaaxal la yow kese.